maa ngi ci jàmm baax waaye sax ça va. maa maa ngi la doon xaar fii sax pour nga génn. la xam ba jàmm. waaw waaw waaw jàmm la waaw. douche bi. waaw mooy fii nga jógee nii douche bi. waaw damaa doon waxtaan ak gars yi pour suba. ñu ñëw ñu ñëw ngaccal ma ko kon damaa bëggatul tey journée bi li ci des yëpp jëm suba bu bu kenn dugg si loolu tax ma danaa taxaw fii boo génnee ma wax la ko. waaw yow Ndiaye nag ngacc douche bi nag daa jar kenn bañ fee dugg mané ne bi bu xana bu kenn duggu ci douche man kay li la wax xamna ko douche bi buñ ci duggé bu beesee du kii man ma bëgg tay bu yow mi comme genn nga ni bu kenn du gatt douche bi waaw douche bi day fess bu fi kenn gatt yow Ndiaye yow kañ nga commencé di ngacc douche ci kër gi. nga ni kañ nga commencé ngacc douche ci kër gi. waaw lolu sama initiative yu bees la man yooyu man mako sama décision yu bees la fi kër gi mom douche bi mom tay ba suba bu sine ne dugg de nga jërëjëf lolu la doon lolu eh eh dama bëgg nga xolal say parole ah. yaa ngi bëgg ëppal sa kilifa laa yaa may dégg ay waxul da buy dugga si douche bi yoon nañ njëkk tey na mujj tey bu ma ko waxati ah. hey kër gi da nga cee am ma am douche bii ma ne doo ci duggatee ma def la lu bon. waaye yow yow mer da nga naan ma alxuraan waxatee dama lay ñuus. ma ko duul sa téere yi ngay jàng yow duuti maa ne boo maa ne duuti bu ci kër doy na waa nijaay yow lii dama bàyyi ma duma kii kii dama ko bëgg a wane du sa cër la taxawal réglel yow nijaay àndal ak sa sago lii du sa cër kat yow lay def ni lan la yow Ndiaye lii ma wax dafa simple kii sa mag la duusi laa ne ko bu ci ne dugg damay ngacc duusi léegi loolu la la si bëgg waaw léegi ngaccum duus lu mu jotee bu dugg ci duus bi jeex na boo ma waxaatee dara fii laa lay bëgg yow kii sa rakk la waroo koo topp kii chaque jour li ma lay wax yaay baayam yaay magam yow li tax ngay topp njaay mi yow li nga ma daan tere kon yaa ci nekk yow boo ma fekkee ci biir ma def leen kon maa la wax nga muñ yow ku yow la moo tax mënoo responsable yow ma saas ma may saas alxuraan bi ba ma ma xeex waay yow buñ ma lekk ndijaay ndijaay lii man d'accord ma ci li nga ma daan tere moom nga def tey di war ngaa taxaw fi bëgg a songoog njaay ah yow ni nga doonee fa ci dëkk bi ak alxuraan bi nga dëkkee ni xanaa bu dul dara sax yow nga xool ci alxuraan bi lii kat waru la baax na du sa cër nag baax na dégg naa ah jërëjëf njaay mi ah. mii ku ko toog dina la laqul nit koo xam ne histoire guddi histoire bëccëg man xaw tuuti sax ma juum yal na ma ko yàlla jéggal Yeah.